bu dee d'accorduñu ci moom mu teggi loxoom euh, il foog ñu waxtaane ko nag hmm. ndax te euh, ay assise la waaye bu ñu d'accordul ci yenn ci ay ponk wala yoo xamante ne euh, amaana ñoom ñi ci biir ci seen biir soxla indépendance ànduñu ci faw ñu toog waxtaane ko ba xam lu tax ànduñu ci waaye ngoone moom ma nga woon ca ca biir hmm. liñ naan tungu ne du teew ñuy nataal déjà comme ni ma ko waxee góone liggéey bi yemb na jot hmm. na ci wax na li ci yéenam Euh, lan nga jàpp ne xëy na buñ ci génnee moo war a doon yeneen ñu yëg ni en réalité justice bi ñu jàppoon ne am na ci ay gàllankoor liggéey nañu tàmbali nañu gis li nga xamante ne moom mooy résultat wu euh, liggéey bi. man dama jàpp ne xel mun na daal ci ñi demoon fekkee ndaje bi. ak ñu mm-hmm. ko fekkeewul. parce que déjà bu fekkee ne moom bi nga xam ne jébbal nañ ko conclusion assises yoo xam ne toog nañu di ko waxtaan ay bés. Mm. ay kilifa bàyyi seen lépp. Mm-hmm. ñu daan def sa euh, assises yoo xam ne ex la daan def génnee ay xaalis bu bari. pour pour yabal ko ci ña fa dem kenn fayu leen seen paase leen delloo mooy comme per diem nga xam ne dañu koy jox parfois journaliste yi donc foog naa foofu am na trans euh, traçabilité tuuti mu am lu mu wax askanu Sénégal moom mi wax nga ko sànq ci kanamu ñëpp ne leen bokkul ak yi fi daan nekk nga xam ne bu ñu ko waxtaanee càmba ko pare dañu ubbi taatu tiriwaay dugal ko ci fàtte nañ ko. Mm-hmm. ne leen bu dee tey yenn ci mbir yi mën nañ koo tàmbali liggéey mooy yi amul peut-être dugal xaalis ak yooyu war nañ ko mën a dafa léegi loolu bu muy wax ci lu jëm ci euh, conseil supérieur de la magistrature moo ko fi waxoon ci ba muy wut réew mi ne da ciy génn loolu bëgg-bëggam ne woon lu am ci réalité peut-être ak bëgg-bëggam ba tey mënut a bokk. Hmm. waaye ñi fi bind ne nii wii nii noonu damaa foog ne ñoom nekk ñu woon ne président Bassirou Diomaye lañ jàkkaarloo dafa am keneen ku ñu jàkkaarloo wala ñu doon gént. Hmm, ay toppalekat la xam nga lu mu wax dafa ne ñenn ci magistrat yi waxul magistrat yëpp de dafa ne am na ñenn ci magistrat yi ñuy rapporter seen ay kàddu. nekk ko yow président Bassirou Diomaye Faye d'accord ñu nga quitter le conseil supérieur de la magistrature. Mm-hmm. mu ne nag moom dafay préciser ne parewul pour nekk ci parewul pour génn ci mm-hmm. dina neutre par rapport au conseil supérieur de la magistrature loolu ay kàddoom la waaye dafa am leneen loo xam ne daf ko cee teg mooy li ma mi doon wax sànq àggalewu ko xam nga muy lan ma mi na du accroché wu ci boobu le poste. waaye bu ñu ko indilee ay argument yoo xam ne dafay am intérêt boo xam ne intérêt boppam la moom du ca toog bu boobaa dana wax kon waxul nii wi nii non. Mhm. la ko fay téye wax na ko la ko fay génnee wax na ko donc pour ñi nga xam ne dañuy euh, tas xibaar nekkuñu fa woon ñu dem xoolaat li nga xam moom mooy vidéo mhm. ñu dellu siwaat ci li nga xam ne moom mooy. doguma la ñooñu ñoo la gën a xam li xew foofu dañuy manipuler. waa kenn doon journal yi ko bind yëpp. waaw boo seetloo. Mhm. ci dañoo am métier dañoo am. dañoo am mission de manipulation mission de manipulation dañoo am dañoo am mission de leeral. waaw kay ci leeral boobu lañ nekk. léegi ci ci ci lu jëm ci ci justice ku ne xam na sànq Ibrahima dafa wax lu am solo ci surpopulation carcérale xam loolu lan moo koy indi loolu ci assises yi xaw ma ndax waxtaane ngeen ko fa am waxtaane wu leen ko fa waaye mu jëm ci pouvoir u procureur bokk na ci li feesal kaso yi. Mhm. xam lu tax bokk na ci li kaso yi. parce que affaire de copinage affaire de yaama neex da cee am. procureur day toog nekk ak xarit mami nabu tooñ ma wax ko ko mu oote ñu jëli mami yóbbu feesalu kaso yi ñu jàpp nit yóbbu ko Ibrahima sàll mii day xeex ak ak yelleef ñi nga xam moom mooy détenu am na ñu nekk ci kaso yi ñoo xam ne boobu ak léegi ñu ngi ci kaso yi amatuñu kayit kenn xamatul leen di toppee parce que ay papier dafa lée dafa réer. kenn xamatul lan lan lan moo leen fa téye. 263 détenus. merci beaucoup kon kooku ba ay seen ay mbir war nañ ko xoolaat ndax du mbiri politique ku nekk am nga loo dëggal kaso. waaye tam ci jamono ji nga xam ne kaso gënoon a metti wàllum politique bii ci la bokkoon. képp koo xam ne gis nañ la wala euh, am na ci parti boo bokk wala nga yëkkati ay kàddu yoo xam ne neexul nguur gi dañ lay tëj. te lu ci gën a doy waar moo dañ lay ubbil instruction ci dossier boo xam bu même mën nañ ko yóbbu flagrant délit. Hmm. boo demee ñu jugé la. kon loolu ñu wàññi pouvoir u procureur ba ku ko neex tëj ku ko neex jàppalu mhm. loolu itam da ciy baax ndax le procureur a trop de pouvoir ngoon dama la dëggal rek jëluma sa temps yi ngoon mu wax dafa am solo ñaari poñ poñ yi mu ëppoon li ñu ko doon waxtaane mooy conseil supérieur de la magistrature ak les pouvoirs exorbitants du procureur pour li nga wax rek. waaw moo ëppoon li ñu ñu bëri d'accord uñ si ak mandat de dépôt jox procureur quoi mandat de dépôt systématique yi ñaar ñett rafet nga kii nga ñu placé la sous mandat de dépôt yóbbu la loolu tam bokk na ci li nga xam ne euh, ñi jébbal euh, euh, conclusion yi wax nañ ko wax président Bassirou Diomaye Faye pour mun koo xam nit ñi dañoo dem ba perte espoir ci justice ci li fi nekkoon parce que li ñu fi fekkoon moo tax kenn amatul woon sañ-sañ wala bëgg-bëgg ci justice tey ñu toll ci jamono boo xam dañu ba war a réconcilier waat nit yi ñi amoon seen yaakaar dañoon ñu indiwaat ko ñu mën a amaat benn tuuti mbir ci ci justice li gën a am solo ci mbir mi nag mooy xam nga lan da nga tudd fu am solo mu yenn ci magistrat yi foog ne ay yàlla lañu am du ñoom ñëpp. dañ lay wax ne loo àtte fii di nga ko àttewaat fële. waaye léegi yow bu fekkee fii da nga fiy àtte lu la neex est-ce que tamit jotul ku nekk xam fa nga war a yem ak say prérogatives fu mu yem. pour des raisons politiques nga def nit lu la neex. tey bu ñu demee ci fàttali ba gis Ngagne Demba Touré mi nga xam ne dafa exilé woon ñëw ñu jàpp di ko yóbbu ñu taxaw lu ñu la sant yow juge d'instruction ba nga yem ci fee yi bu fekkee danga koy inculper nga inculper ko nga koy saagaak di ko wax yenn wéet boobu amul wa am wanewul ne yow da far mm-hmm. ndax yow ba ngay jàng di génn ENA wala ba ngay dem di jàng ji lu jëm ci wàllum magistrat dañ leen ne yow boo amee sa benn prévenu boo xam da nga koo téye bu ñu da nga koy xas da nga koy saaga di ko ne tàppet nga ak dangaa dawoon ak dangaa fuite mm-hmm. loolu lañ leen di xaare ñoom léegi lan moo tax tey ñii ci yenn avocat yi bu ñu defee mbir yaa ngi koy wax sànq ñu am bâtonnier mhm. boo xam ne dafay dal seen kaw ñeen ñu dem ba leen di suspendre ñeen ñu leen di dind ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, seen seen seen kii seen seen seen seen liggéey yéen journaliste yi ngeen am ko journaliste yi am ko léegi citoyen bi am ko magistrat moom yàlla da koo may lu mu mal da ko def damitu malaaka ba bu defee lu mu warul def kenn du ko woo wala kenn du ko atte moo tax bu ñu waxee assise nañ ko wax ni ko Ibrahima waxee président na la République nañ ko wax lépp loo xam ne moo fa nekk te man gëm naa ko sànq bi ngay wax parce que lu jëm ci euh, euh, garde pénitentiaire yi ak lu jëm ci kaso yi wax na ko ci donc damay jàpp ne kii xam na gis nga li nga nekkoon il faut nga xam ko parce que tey bu toogee wax na leen xam naa fu ma jógee xam naa fi ma yegg si. Mhm. ñu ngi doog a am président de la République boo xam ne dafa génnee ci kaso bi ñoo toog ci euh, bopp réew mi. kon kooku xam na jafe-jafe yi nga xam ne mooy kaso naam fa mu nekkoon peut-être amul surpeuplement carcéral comme yeneen kaso yi ni mu ko amee si kaso bi boo feebaree doo am loo fajoo sa bañ suy metti ñu jox la paracétamol lekk gi ñu lay jox ngay lekk baaxul parfois sa lekk su ñëwee ñu sàcc ko bu dee dafa neex. yenn yi bu wax ne ñu ne du dugg parce que ñi ngi préserver seen boutique xaalis ba fay génne bu ñu la nee meew du dugg pourtant mën nañ ko sauver ba xam ban meew moo du mais pour ñoom business ba nga xam ne ñu ngi koy def ci boutique bi loolee la ñuy xool te temps nag dafa am yenn yoo xam ne dañ leen teg muy euh, euh, benn kuréel goo xam ne li leen tegee mooy ñuy dem di xool kaso yi di xool ñi am longue détention di xool ni ONLP boobu doo leen sax dégg ñu communiqué seen bureau ngi fii ci VDN bi booy dem mosoo leen dégg ñu def communication magistrat yi nii yow Ibrahima dugg nga ci kaso bi man dugg naa ba ci biir 100 mètres ci làmb bu ñu doon organiser pour xool mais boo fa duggee sa yaram day daw. magistrat yi nga xam ne ñaar ñett ñu condamné la koo ci laaj kaso bi nu mel xamu ko buntu rëbës la ñuy aw te bu ñu fa awee duñ ko xool. bu ñu demoon ba dugg ba xam néegi li fa nit ñi di daj ba xam ñenn ñi bu ñu feebaree mënuñoo faju ba xam ne am na ñoo xam ne leen condamné fii ci Dakar seen ay mbokk nekk fu ñu lekk sax problème la bu ñu amoon ñu nekkal ci biir néegi ñu leen yëkkati seen ay lekk di leen ko may du ñu am yére du ñu am dàll du ñu feebar du ñu faj kenn du leen oo kenn du leen seet te ku nekk xam na kaso li fa nekkee peut-être que li muy metti yëpp boo amee kuy ñëw di la nemmeeku boo amee ku lay bàyyi xaalis boo amee ku lay ñëw di la kii dina xaw a apaiser dina xaw a wàccee tuuti mbir mi donc tey bu ñu waxee assise de la justice xam nga lu nekkoon rôle képp nag am na ci rôle muy taskatu xibaar muy imam muy kenn dañu wax a toog waxtaane xool lu ci gën a baax mhm. ñu tënk ko mais mënuñu di manipuler di manipulé bu ñu bëggee defar Sénégal nga toog naan conseil supérieur conseil supérieur de la magistrature nekk woon ci ci ci mhm. assises yi am na lu gën a important lu jëm ci avortement médicalisé bi war nañ cee wax lu jëm ci yàmbaa bi kii mu ngi koy wax sànq dafa war am ay peine alternative parce que xam nga nit ku nekk góor nga tey mu nekk da nekk ci koñ di jaay bandi bu ndaw di tux yàmbaa bu ñu la jàppee koñ ba nga dëkk nañ la fa yóbbu ñuy bale ñu xam solo la yére boo xam ñëpp dañu xam ne kii da doon tux yàmba peut-être beneen jour doo ko def mais d'accord ma ci ñu dindi criminaliser criminaliser li nga xam moom mooy viol bi parce que dafa am ay viol yoo xam ne dafa ànd ak circonstance aggravante di nga violé nit mën nañu dindi li nga xam ne moom mooy mënuñu mënuñu ko dindi faaw ñu atte la atte viol ak atte ku rey nit te tam képp koo xam ne tam takkal nga nit viol ñu dem ba ci biir xam ne yow mi takkaloo ko yow it yoon dafa war daal ci sa kaw moo tax justice li ñu ci wax a defar wax dëgg yàlla dafa dafa dafa dafa dafa bari kan si. kan. moom ka ko yóbboo ka mu àndal ki ko génnee Sénégal yëpp dañoo wax moom yàgg yàgg ñoom il faut rendre justice. Euh, waaye bu leen yàq waxtaan waaye. <laughs> Euh, loolu li tax euh, peut-être Ibrahima wax ne excusez-moi ndax du mooy tandiku mhm. li nga xamante ne tey benn ngoone nekk ak benn Ibrahima. Mhm. ñu koy nekk muy neex tout le temps mu xëy suba rek xool Ibrahima rek am ak moom problème rek daal di koy jiñ viol. d'accord est-ce que du pour limiter peut-être leen les dégâts. am na ci kenn koo xam ne mu maa ngi wax ci coom mun nañ koo jël exemple agent bu Croix-Rouge bu ñu tuumaal viol. Mhm. ñaari at ci ren xale bu jigéen bi nee na moom tuum dafa dañ koo wax mu tuumaal ko mais ba tey kenn bàyyeegu ko comprendre nga bu baax li may wax. Mm. am na ci jugement boo xam man maa ko fekkee xale bu jigéen bi tëngéej la àndal la la dëkk ànd ak tàntaam ji nga ba ñu requérir ko tuddoon aadama Ndiaye moo nekkoon ci boobu euh, le maître des poursuites bu ñu requérir la peine de 10 ans xale ndax mun naa wax xam nga lan ñu ne ko non kii na mais dañ ko comme gis nañ ko nu mu def dañ ko bàyyi mu ne sama tante moo ne naa ko tuumaal sama mm. tante moo ne naa ko tuumaal mosuma viol sama far la woon mm. donc dafa am yenn yoo xam ne mooy comme li amoon ci yaa yaa koy bañ a wax ci ki nga xam ne moo tas réew mi mm-hmm. ay juróom-ñaari maam bu ñu waxee ban bëgguma sax di tudd turam parce que mérité tudd mérité wul jigéen di toog ci plateau bi di wax turam parce que moom lu lu am tey Sénégal bu ñu tollee fii moom ak ñi ko ngemboon moom da ci am part bu ndaw mais dafa am ñoo xam ne tey jii ku tëdd ñoom ñoo war a tëdd parce ñoom ñoo defoon seen diir pour loolu am mm-hmm. am na ci ñoo xam ne règlement de compte lañ koy defee nga nekk ak nit ba mu neex la nga ne naa ko tuumaal viol parce que dañ ko criminaliser bala nga naan set naag setul fekk na yow lu ci bari tëdd ko mm. peut-être foofu la ñuy waxee mais am na ci yoo xam ne li xewoon Kédougou la xaw ma ko bi nga xam ne fekk ko biir kër muy gardien bi moom moo doon nekk garde seen kër mm-hmm. ko sàkk ko mm-hmm. dem donc foofu bu ñu waxee criminalisation dañ ciy ànd dañ ciy ànd effectivement waaw waaw une courte euh, enfin contribution pour clôturer li li li Ngoné di wax euh, et sa une chose et ça me tient réellement à gis nga ñi fi nekkoon doon atte mhm. ñu ngi ci système bi ba tey waaw ñooñu ci ñi ñu war a teggi la ñu bokk xam nga lu tax ne serait-ce que pour ñu teg leen pour enquête wax naa la ko démb fii je suis désolée de le dire mais il y a eu trop de liberté de laisser aller ci lu jëm ci wàllu jugement wu yenn dossiers yi fii procureur yi fi nekkoon ana nañu ñoo ngi fi ba tey ñoo fi nekk. Hmm. mais ñooñu tant que ñu ngi fi système bi. tant que conseil supérieur bu magistrature changé woon ko ñoom euh, ñi nekk ci gouvernement bi li ñu bëgg am duñ ko am parce que ñooñu ñoo fi nekkoon. ñi daan yónnee déglu xaaral imam ñi fi nekkoon toog. Hmm. naan dañoo jàpp ay terroristes dëkk bi dañoo jàpp ay ay ay ay ay kalachnikov di wax di génne ay vidéo ba vidéo bi càng ñooñu ñoo fi nekk ba léegi. Hmm. ñooñu ba ñuy def prestation de serment fële ca jam euh, ji dañoo costume mu ñëw taxaw. xanaa loolu mooy wax ne ñoom am amu amuñu sax lu ñu yëg seen yaram parce que ki nga doon traité de bande ki nga doon traité de terroriste jël ay ah, xale jël ay jigéen tuumaa leen ay forces spéciales tey ñooñu tey ñoo falu yow nga toog di leen xoolaat te yaa leen ko tuumaal moo tax ji nga ñoom tànk jógewuñ ci réew mi ak tata bu yaraax bi merci beaucoup gis nga loolu dañ ko non tata bi ñu waxoon dafa am dafa am euh, ah, attentat bi attentat bi amoon xam nga man dem naa ba ci kër attentat wu yaraax ñañu waxoon dañoo ñàkk seen bakken nationalité guinéen la ñu yore am na kenn koo xam ne waxoon na ci nee na seen nijaay la ak yooyu nee nañu suuli nañu peut-être ñoom gis nañu corps mais man personnellement gisuma corps bi fii attentat bi fi ñu wax ne présumé attentat amoon na ma defaat samay wax dem nañu fa mais ba fa ministre bi di dem amul benn taskatu xibaar bu fa dem dañoo wax ba pare seen cellule de communication moom moo partagé li nga xam moom mooy image yi mhm. moo tax gis nga euh, mbir moomu amoon bu ñu bañee mu amaat fii ci Sénégal faaw mu am yoo xam ne dañ koy lijjanti mhm. xam nga mooy lan munoo nekk na yow da ngay atte nu la neex nga atte nu la neex nga def yaa ngi koy tudd sànq muy Sabassy Faye am na yeneen Sabassy Faye yoo xam ne dañoo feeñoo. ah ouais, quel juge héroïque. Ah. am na yeneen Sabassy Faye am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir justice bi ñoo xam ne fësuñu feeñuñu ci mbiru Ousmane Sonko bii ñu ngi ci bëggoon yàq seen carrière ak ñu ngi ci yàq seen carrière bay na parce que xam lu tax dañoo bañ na ñoom. lu leen woowul duñ ko wax donc nag il faut mu am benn commission d'enquête boo xam ne lépp loo jugé woon di nga ko jugé waat ci kanamu nit waaw waaw bu gaaw def nañ maximum mm-hmm. une heure de temps ci sujet bi te il faut ñu avancer des nañ a waxtaan quelques quelques secondes rek euh, li ñu am yëpp ci juge ça fait cinq cent trente juges quatre cent et quelques euh, avocats avocats quatre cent et quelques